salaam yaay maaleykum salaam. na ngeen def yéen a ngi si jàmm bu baax. waaw ñu leen di delloo nuyoo bi rek. laaj tur bi nan la. aw Fall waaw. lan nga ci ki nga xamante ne mooy bambino bi nga xamante ne moo fi jóge. man maay magam bokk ndey baay. Mhm. waaw li ma mën a wax si moom rek mooy nit dina nekk ak yow ba dem ngay soog a xam kum mu doon. wax dëgg yàlla rakk bu baax la am na ñaanu waajur de wax dëgg yàlla. waaw papaam ñaanal na ko yaayam ñaanal na ko wax dëgg yàlla mbooloom bi tamit ñun tamit kontaan nañ si nit yi lu ñu def li rafet na tamit bu baax. ba ban côté la la féete woon moom. si lépp macha allah conseil jàpp na comme magam daal wax dëgg yàlla ndax lépp loo xam ne rek bëgg na ko mu ngi si waxtaan ak ñun nëbbu ñu daraam daal. waaw Bamba mooy nit koo xam ne même bu dee dee même bu soxlaa dara kenn du ko xam wallaahi macha daal. yan moment la lay gën a marqué yoo xamante ne tey nga xam ne ñàkk nga Bamba dem na. waaw xam nga Bamba ba muy jógee ni ñëw fii dafa def 5 ans Dakar 5 ans la fi def après bu mu ñëwee nag mu ne day dem nuyu ji papam ak yaayam ci weeru koor bi ci la ñëw nekk ak ñoom wax dëgg yàlla lépp luy yaayam soxla Bamba mu ngi ci daw subaak ngoon papam tamit noonu. macha allah dafa doon tàggatoo rek ndax famille bi macha allah seeti na ñëpp waaw ñëpp la dem seeti muy xale bu yaru nag wax dëgg yàlla du question li mu bokk man wante macha allah waaw. effectivement yan moment ngay toog nga sentir dëgg na bamb nag jóge na fi dem na ñàkk nga ko manqué na la. waaw loolu moom mooy jour bi ñu demee Louga wax dëgg yàlla ma tiim ko ban ko dencee ba pare ci laa xam ne nag dëgg dem wallaahi instant boobu moom marqué na ma dëgg te damay toog parfois sama xel di nekk si moom ma naan est-ce que sax Bamba dem na waaw. waaw parce que mooy sama caatu yaay. ma sama caatu yaay mais sant yàlla rek waaw képp kuy jooy tamit da ngay jooy sa bopp rek te xam ne àdduna moo ni li fi jëlee Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bàyyiwu fi kenn kon dañuy nekk di ko ñaanal rek incha allahu rabbi. yéen jikko a neex ci ki nga xamante ne mooy Bamba. jikkoom macha allah lépp neex na ma parce que jullite na Bamba bëgg na yaayam bëgg na papaam bëgg na tamit ay jarbaatam ak magam nijaayam lépp. Bamba dina soxla dara kenn du ko xamal dina day wane na góor la macha allah génn na dem di wuti ji lépp ngir lan pour bégal yaayam ak pappam mais macha allah daal mënuma wax lépp waaye suñu xol sedd na si moom te gëm naa ne macha allah fi mu tëdd kontaan na tamit ci mbokk mi leen ko defal nii te ñun tamit suñu xol sedd na si torop mbokkam yi nga xamante ni ñu bokkaloon milieu bi aar bi ñëpp daal di ñëw fi dajaloo fas yéene ko tey defal fii beneen sarax ñaanal ko tamit pour yàlla suñu borom jégal ko ay bàkkaram yàlla na ko yàlla xare àjjana firdawsi yàlla na àggal jeen daawam foofu te loolu ban yëgal la la def yow en tant que magam. kontaan rek macha allah kontaan naa si bu baax parce que comme ni nit yi dajaloo ko fii Bamba si boppam lii la bëggoon parce que chaque fois bëgg nit yi di ànd musoo ko dégg ci lu ñàkk fayda wala nga dégg bàmba mi ngi xuloo wala nangam sant yàlla alhamdulilah xam nga nit sax dina de ñu naan bor yi mu amee wala nangam mais alhamdulilah sant yàlla fu ñu dem yëpp ñu ne amee fu bor parce que macha allah bëggul nit yàpp ko xam nga waaw lépp moom. tey Issa Yaye tey ni la koy dundee Issa Yaye. ah metti na ndax mooy caatam wallaahi mooy caatam waaw am na benn frère am boo xam ne Daouda la tudd mais groupe bi beleen ko gën a xamee. ci affaire comédie lay dox macha allah kooku tamit jour bi ko ko waxee affaire bi daf ko bett. parce que ki jógee foofu tamit dara jotu ko macha allah mu ñu ñëw ñu tàggale ñu leen diw dem na dafa metti torop. nee na yëgoon feebaram. non dara jotu ko woon macha allah dara jotu ko woon mais yàlla bu ñëwee rek ñëw na dañ koy sant yàlla rek wallaahi. a baax. maa ngi leen di bëggee yéen tamit bu baax ngeen koy yokk ñaan rek incha allah te li li mu bëgg li encore na koy ñëpp di def parce que li mu doon mooy ñëpp na nekk benn bëggul kenn di jote wala surtout ñi nga xam ne ñoom la doon liggéeyal mm-hmm. nañ gën a jàppante rek incha allah. ñoo ngi lay delloo ziar bu baax. Euh, lan nga ci ki nga xamante ne mooy ko fi. Bamba sama jarbaat la. tey tonton lan nga ñu mën a wax ci ki nga xamante ni mooy Bambilor. li ma la mën a wax ci moom daal ku baax la ku jullite la ku am yar ku jox nit cër. waaw bëgg fu mu nekk ñëppay ree kontaan ndax di def ay affaire comédien nit ñi kontaan di ree même añukaay bu ñu fi toogee ñun ñëpp fu ñu dool dañuy xataay du def lu ndax yi muy def man mi daf may tooñ chaque jour di ma wax ay wax yoo xam ne ba bërki démb bi nga xamante nii mu ngi ci feebar bi mu ngi may tooñ naan ma yow sa yaay man maa koy jël dama koy takk ma ne ko yow takkoo kenn waaw kenn nga tëgg yow bu la tayee nga ni sama doom nga bëgg bu tayee nga ni sa yaay laa bëgg di maame quoi sama sama waaw kër gi ñëpp jàmm la am ñoom koñ bi ñëpp la amal jàmm nit ku ku mel ne ma man mosuma koo gis man affaire dafa ma bett ba nga xam ni damaa jaaxle parce que man damaa liggéey ba ñëw ñëw ci kër gi mu daane ma am na ku fi war a ñëw def massage te yow da nga ne sa yaram day metti man ne ko man sama yaram day metti mu ne bu ñëwee danaa ko wax ne ko mu mu boole wàll la ma ne ko amul problème yaa koy fay mu ne waay nga yor xaalis bi ma ñëwee moom bi ko waa ji massage moom it mu woo mu woo ma ma ma dugg mu massage ma ne ko da ngay jóg matelas ma ma tëdd mu ne ma jóguma waaj daane ma yow fi nga toog ci photo bi mën naa la fi massage ma ne ko amul problème bi ma massage pare ma yëkkati 1000 francs jox ko moom it mu jox ko ma ne ko baax ma ñaata nga ko jox mu ne bu lijjanti li ma ko jox soo yoon néew ji après ci laa génn bàyyi ko fi moog waa ji mu defar xawma kafe la defar xawma euh, kii Fatou Gueye mii la wax ni ko tàngalal ma ndox mu defar ci café xawma lu mu doon defar daal ba toog teg kaasam noonu di ndékki man ci laa génn ci bunt bi ma génnee ci bunt bi la ma Fatou Gueye ñëw woone ma kaay xool bamba ni muy def ma ne ko man bamba man bamba waay bu ma wax waxee bamba bamba moo ko tey parce que affaire comédien lay def chaque jour di yoo ak def ma jàpp ne rek day kaf bi ma ñëwee laa fekk mu xaw a sonn ma jël oto yóbbu ko bi ma ko yóbboo daanaka dama àgg ñu ne ki nga indi dese dina lii leen jàpp nit ku baax ku woyof ku dal ku xam àdduna ku mën a doon man maa ko mag fop njëkk ko Dakar mais lim xam ci Dakar lim fi xam ak lim lim fi lijjanti man mun ma ko lijjanti xaw ma sax xaw genn wàll gi xaw ma leen man man tey laa xam ni Bamba beneen affaire la man Bamba daf maa bett carrément carrément dama doon wax kii day dox di dem di taxawaal rek ndekete Bamba mi ngi ci leneen waaw àdduna bépp ku xam mais nit ku baax ku jullite waxtu nag du ko du du faat waxtu waaw liñ mën a wax ci moom moom mooy du faat wax tey yéen ay mbokkam ngeen def seen wàll fi nga xamante ni mooy luga tey euh, mbokk artistam yi ne ñoom tamit faaw ñu defal ko li nga xamante ne mooy faaw ñu wàcceel ko kaame ñaanal ko ndax Bamba kenn la woon ci ñoom te taxawaay bu rafet la amoon ku ci nekk sa diggante ak moom di euh, defaraat ay diggante di def lu baax di wax lu baax tey mu jóge fii euh, ñooñu tey ëlbatiku tey di ko saraxal di ko ñaanal tey lan nga mën a wax ci loolu. non ñooñu moom li may wax ñoom mooy àndandoo yu mel noonu ba muy juddoo ba léegi mosuma koo gis. nit koo xam ne nii am na ñoo xam ne tey bu fekkoon ne maanaam du ñu àndandoo yoo xam ne ñu gëm lu ñuy def lañ bañ ko jëlee ba jébbal ko boromam rek ku nekk da ngay xool sa yoonu bopp dem sa yoon mais boobaak léegi ñi nga xamante nii mooy ay xarit a artisam ñi mi bokkal liggéey bi boobaak léegi ñoom ñoom ñoo ñu gën a sonn jóguñu ci kër gi guddeeg bëccëg lu ñu nekk ñoom ñooñu ñoom ñun sonne sax ñun sonne wuñ ko ci lu nekk ñu ngi koy def boobu ba léegi topp ñu Louga ba ñuy dem ñoom ñoo ñu topp presque ñoo fees oto bi biñ ñëwee hôpital biñ fa Dantec biñ fa nekkee ñoom daanaka ñoom danga naan sax ñii ak ñoo ay mbokk ñun ci ginnaaw lañ ñoo doon féet ñun ñi nga xam ay nijaayam lañ sax ci ginnaaw lañ leen ndax ndax ñoom xir gi ñu xir ci ci Bàmba parce que nee nañ Bàmba lim lim ñu doon jariñ ñun ñoo ko xam ñooñu moom amuñu lu ñuy def lu dul di leen sant di leen gërëm parce que ñooñu liñ ci def ñun ñi seen i mbokk sax ñun mënuñu ko ci wax dëgg yàlla ñu ay jàmm ñu ñu baax a ngi ñu goree ngi noonu waaw dama ñ moom wax dëgg yàlla ñu jëm rek yàlla na fa yiw yàlla ji mais ñu baax lañ barke sëñ waaw kontaan nañ ci ñoom lool lool lool lool wax dëgg yàlla. tey ban conseil ngay jox jeunesse bi boo gisee taxawaay bu rafet bii ay mbokki Bamba ak ay am di jàmmam taxawoo ko ci bisam bi la ban ban conseil ngay jox jeunesse bi ak ñu ndaw ñiy doog a jóg ak dëkk bi fi mu toll nii. waaw gën a góor rek tey mooy tandiku gën a góorgóorlu tey mooy tandiku waaw képp koo gis def ko ni sa bopp jéem a am ak moom jàmm nangoo liggéey loolu daal lay conseillé nit ku ne loolu daal moom mooy li nga xamante ni moom mooy li am solo. foo demit nekkal comme ni ko Bàmba doxale rek daanaka fu mu dem daanaka day mel ne fa la dëkk moom ñëpp benn la ñuy doon am jàmm ba nga xamante ni muy jigéen di góor ñëpp fi mu toll dañu koo jooy ndax jàmmam loolu daal laa xam ku ko def moom am jàmm.